ñu wutali fa nga xam ne nag moom moo di ca commune bu euh, Thiep foofee nag euh, askan waa ñenn ci ñoom nag euh, jamono yi ñu ngi indi li nga xam ne moom moo di xajaatle ci soble bi nga xam ngeen ne stock bi bari na ba jamono yi nag am ci yenn ci yoo xamante ni nag ñu ngi commencé nëpp mu mel ni nag ndaw ñi lu ni mel itam ñoo ngi cay xëy waaye itam di ci ami koppar bu baax a baax du ñu seewul dañuy rek dem teewlu gëstu yi nga xam ne nag Thierno faal daal na koy def. ndaw ñi di ay góor ak i jigéen saa yu ñu xëyee fii lañuy ñëw ci plateforme soble bu ceeb ngir nag di fi daan si seen doole ñoom nag seen liggéey mooy tànn soble si nga xamee ni si dafa yàqu di ko ber li ci baax ñu jël ko sol ko ci yeneen yeneeni saaku vingt cinq kilos defa naa sotti soble ak solaat ko nii rek tànnaw bon bi teg ko ne jël bu rafet bi sol ko saaku vingt cinq sol peese mais daal laay def fii la fee ma ñëw naa fi semaine bale ñëw naa am naa fi ay 15 jours yooyu chaque ay 70 saaf yooyu wala ay 80 yooyu wala ay yooyu ñoom nag saako bu ñu sol ak njëgam am na ñuy fayeeku ñaar fukk. ñaar fukk ak juróom am ñoo xamee ni sax dinañu mën a am ba fanweeri dërëm. dakaale bu juboo rek ne soo ay cent cinquante ay am nañu xool ñu fay ay vingt cent vingt cinq soo fayee man nga sol nga pii mën nga tànn sol pii la cent cinquante wala waxaale bu juboo rek ay cent vingt am am nañu fekk am am nañu fay sax pour manqué lu waaye nag rek bu sol quarante Tá, Fane seen waaw ñu gis seen bopp tane di wax dëgg yàlla tane de man de wax dëgg lii la ren laa ko mos a def sax waaye nag tane daal wax dëgg yàlla. saako bu ci nekk daanaka boo xoolee quarante kilos bi boo ko defaraatee ay dix-neuf lay doon wala dix lay doon ñu fee euh, ay cent cent francs rek ndaw ñi nag donte liggéey bi ñu ngi ciy gis seen bopp waaye ci geneen wàll ñi nga xamee ni ñoo leen koy sant di baykatu soble yi metti na ci ñoom ndax koppar yi ñu leen di fay yeneen i frais la leen di jural ci seen soble si nga xamee ni si daanaka lu ci bëri dafay yàqu. yokku bi moom bëri na wax dëgg yàlla ren moom bëri na lool sax bëri na lool ndax lii mu def nii moom vraiment gis ni ko def moom waaw te fii xam nga li waral yokku marché liggéey guddi ak mais vraiment jàppale moo xaw a des. Mamadou Mansour Ba ndaw la fekk baax fii ci ceeb di yëngu ci wàllum mbay mi moom lu toll ci mille sacs la produit woon waaye fi mu toll lépp yàqu na ba mu des 300 sacs. gis nga triage bi ba mu ba mu ba pare fay naa gars yi saako yi aussi dem kaa jëndaat waaw ma jëndaat cent 150 laa jëndaat loolu aussi da ko ciy boole ma fay gars yi muy 3000 aussi moom muy 30 000 300 sacs yi muy 30 mille ak waaw plus euh, kii non prix saak yi aussi quarante cinq mille gis nga loolu xaalis la frais bi mu ngi gën a yokk aussi te trois te te trois cent saak yooyu jaayiguma ak encore xaw ma est-ce que du nëpp totalement cent pour cent yëpp est-ce que du nëpp donc maa ngi ci gutu donc tey te mille saak soo ko produire du sama moyen banque laa dem jëli fi jël fa xaalis bu bari xaalis bu bari laa jël banque ñëw investir ci tool yi ci plateforme de stockage bu ceeb bi ñu nekk lu tolloog 7000 tonnes soble Ngagne bay mi ngi fi woon waaye fi mu toll nii lu ëpp ci soble bi yàqu na ca li ci des sax donte ñi ngi koy jéem a rawale di ko sol ci yeneen yeneeni saaku seen yaakaar bariwu ci ndax ba léegi gisuñu fu ñu ko jaayee. jërëjëf euh, Thierno Fall euh, ci euh, jàngat bu am solo boobee itam dañuy dugg ci leneen li gën a fës ci li nga xam ne nag moom la yéen yi kaay xëyee ni ki tey ji ci mardi bi léegi léegi.